Lamine. sëñ mbër mu mag musicien bu mag théâtre kat bu mag ñett di décédé. ci at mi. deux mille vingt quatre. ku ci mbër mbër mu mag. théâtre musicien ancien musicien ak théâtre boo xam ne kooku jeune la moom day décédé at mbër moo xam ne dina décédé at célébrité bu mag buy dee si accident. accident loolu moom ci début bi la jàppal li ma la. oh ah Lamine. Uh-huh. ma gis lu doy waar luy ñëwaat ci ci réew mi. ci atum 2024 bi bo xolé ci walu sport dama gis ci walu wàllu hmm ay promoteur yu teug lamb waaw ba nga teug lamb ji leer na ni nga xam ni ñu koy tëgg ñu koy poussat ndax problème ba moyen dama gis ay promoteur yu bess yi ñëwaat ci làmb ji mhm. ak genre manque xaalis ak wal ay mbeur yo xam mbeur yu bess lañ ak mbeur yo xam yu bari ni la traité bokku na ci mbeur mu mag bo xam hmm dina nekk ci lamb ji day bayyi lamb ñaar ñaar kenn ki mbuur la dëkk keneen ki feneen la nekk ci Dakar surprise <laughs> bu rëy lay doon. Uh-huh. accident yi ci waay suñu as. soixante dix pour cent. Uh-huh. accident. non day gën a jaqar naa si yaa ngi fàttali moo naan la. accident Louga bi nga di ma doy des na. non accident yi commencé nañ parce que pono oto yi ak aération yii di daw. tali yi tamit tali yi baaxul dana am beneen cause bu ñuy def waaye dina tàmbalee.

Lamine. suñu as ab xaru. bu doy waar bi am suicide. kii de ci prévu élection yi day dem ba ci côté noonu rek euh, dakaar waaw euh, di taal boppam. ah moom de moo tiré boppam bal moo gën a yomb. dama cee gis nag li ta waral loolu mooy lu ko naqari moom dafa jógee koo ci ci ci réew mi la wax muy taal boppam. waaye xaru baaxul nañ bàyyi loolu. nañ bàyyi xaru. xaru baaxul nañ bàyyi xaru suñu as. ah Lamine. suñu as ñun de est-ce que duñ tëj révélation yi suñu

dëkk bu dëgër journaliste yu bëri dañ leen fa jàpp. ah Lamine gis naa lu doy waar de ci réew mi ah mariage yi. sëñ xam nga kii waxoon nga ma mariage yi nga ni ma nga ni ma animateurs yi nga ni ma wàcc leen. Hmm. nes tuut Moussa takk. nga ni ma seen télé bi wàcc leen sëñ as. <laughs> dama gisaan nag ci biir mariage yi nag. waaw loo xam ne bi yow négatif la ay divorce. célébrité yu marié wu yëpp. waaw les 60 pour cent dañuy divorcé waat. ci at mi 2024 bi bokku na ci ku siiw kuy teug lamb bi da leen lii xam day divorcer wu atu 2024 bi animateur bu mag Wow. ci télé ñepp xam ne mhm. amna na ñepp taccu muy ni divorcer wa divorcer bo xam mom rabo ko japp fokk mu ñew ci asbram asbram fajj ko divorcer yi dafa bari refoulé ay Lamine yaa ngi fàtte refoulé yi ma doon wax waaw sama mariage bi war nga gis euh, la ci 2024 ini. Wow. waaw

ñepp di liggéey ñu bari dëkk bi neex ñepp loolu lu neex neex ci ci 2024 bi. ñu ci bëree bëree bëri bëri ñoo xam ne ay semeur lañu woon xam nga masse semeur Sénégal dafa bëri. dafa bëri ñu bëri nañ liggéey. parce que président da jël ay décisions yu bees tax yoo xam ne as braam da ci dugal xam-xamam. Mm-hmm. dugal ci loxom buñ ko dogalee tout rek da ngay gis ne ndaw yu ci bëri yu taxawoon doon taxawal dañuy liggéey. dëgg la ah Lamine. ay sëñ as. footballeur boo xam ne ñuy tëjee bu mag ci Afrique. waaw buy génn àddina. xaar ancien footballeur. homme politique bu mag politique. Yes. ah. Euh. dama Yes. Wow. waaw bu homme politique bi pouvoir waaw couleur la commencé di fi am dara. ba xolé da na gis as bu gisee as Birame. waaw loxo Thiès ci politique. waaw day téye wàllu kii ci la yittee am la sante té mo djumul Cheikh Tidiane la tudd. waxati na waxati nga Cheikh Tidiane la tudd Cheikh Tidiane la tudd aan la sant. dina am dina téye ci politique ci dama teud tëdd ñi may won Cheikh Tidiane ñetti yoon. booba di mo xamné am aan sante sant aan aan aan. waye sarax fo mu am ci réew mi. ci réew mi direct tour won waye atu 2023 nak moy gëna graw deret ji tuuroon fii bi day moyen mais lii yëpp ci élection yi lay ab am mais dese dina am waaye at 2023 mooy ëpp décès ah Lamine. bu dee naan élection bu jàllee décès yi dina wàññeeku. bu day wàññeeku. alhamdulilah daan teg. Uh-huh. commencé naa la les premiers mois. Uh-huh. day xaw a dëgër. xaw a tar mais bu dawalee tuuti rek dëkk bi uh-huh. ay mbir feeñ. ah Lamine. ay lu doy waar nag loo xam ne naa la ko wax. ab xalif bu mag fa laay atu 2024 lay génnaat. laa ilaaha illa ay waay bugguma ko woon wax. maga hmm. maga mag ci réew mi bugguma ko woon wax. ndeysaan dina décédé ak benn nit koo xam ne président la woon ci suñu réew mi di gaañu gaañu deuil national wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu. allahu akbar.